waaw sama gaay sama gaay maa ngi leen di siyaar <laughs> kon kon kon Guy Marius Sagna jël na am ñaareel ni waaw nekkate yéen daal di ngeen di ngeen di ngeen ñëw focus focus gars yi focus ci combat bi boobu yéen a ngee Guy Marius <laughs> baax na <laughs> ma ne a baax na ah waaw baax na li a mooy la fekk nga tuub rek nekk nekk ab lii nekk ab jullit loolu tamit baax na de vraiment dëgg na yàlla c' est un c' est un très baax na de waaye ah ñun baal man ñun faw ñu ñëw commencé <laughs> bëggante comme yéen te ndax bëgg nañu ñaareel waaw ñu nekk si combat bi yëpp yéen a waaw yow gii moom yaa ngi waaye nag baax na alhamdulilah yàlla na nga waaw gi moom yàlla na la jig rek moom noonu lañ kaa waxee xaw ma waaw bienvenue dans l'islam ma ne ko bienvenue dans l'islam <laughs>